ci jafe ji nga xamante ni ñi ngi koy commencé di seetlu jëm ci élection yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ah dañu gis ne senegal heure bu ñuy jëm ci élection day am ay yëngu-yëngu yoo xamante ni léeg-léeg dina dem ba ci dayoo boo xamante ni du neex askan wi muy ci wàllu violence ñu ne kon dina jaadu suñu kilifa diine yi nga xamante ni yàlla dafa def ci taarixu Sénégal duñu mësa am taxawaay ci wàllu jàmmal réew mi ba tey bu ñu amee taxawaay ba ñuy kañ senegal ci jàmm ci àdduna bi moom donte bari na ay diine yu fi ne donte bari na ay tarixa yu fi ne donte bari na ay waaso yu fi ne waaye ñu ràññee réew mi ci am dal goo xamante ni euh, fu ñu toll dafa nekk ci suñu ADN ba lu ñu song rek fa muy mujjee lu neex réew mi lay doon ñu ne kon mag ñooñu tey ñi leen fi toogal di suñu xalif généraux yi ñoom sax laa waroon njëkke ndax tey bu réew mi amee taxawaay bi mu am lu ci ëpp ci seen taxawaay la suñ ci limee sëriñ Mountakha Bachir Mbacké lim ci sëriñ Babacar Sy Mansour lim ci sëriñ Mahi Niass lim ci eh, sëriñ eh, Bekkaay Kunta ñu gis ne seen taxawaay et woo askan wi ci ñu dalal réew mi ndax élection yi ñu dëgmal ñi nga xamante ñoon si ñeen ay njaboot dinañu xool ci ban yoon lañu mën a jaar ngir yëngu-yëngu yi nga xamante ni euh, door na ci réew mi muy ci wàllu wax bu ñagas muy ci wàllu fitna yu ñu yëkkati ñu ne naka lañu mën a jaar ngir mën koo dalal ngir sagale ko suñu kilifa yooyu ci anam boobu ci la ñu jóg jël suñu dàll mu nekk ay série de consultation yoo xamante ni wala donc ay nemmeeku yoo xamante ni dañ koy nemmeeku mbooleem woy politique yi nga xamante ni ci réew mi wala bokk ñi ci ëpp solo donte xeebuñu kenn ci la ñu def tey jii ñëw seet si euh, coalition Yewwi Askan Wi ah te message bi ñu leen indil. mooy message u jàmm xam nañ ni ay kilifa lañ fi fekk xam nañ ni ay nit ñu am sens de la responsabilité lañ ci fekk ah ñoom dinañ ko waxal seen bopp waaye li ñu mën a génne ci waxtaan wi mooy lii ñu leen indil ak wala li ñu fi fekk ñun dal na suñu xel ci réew mi anam bi nga xamante ni war nañ faa mën a jaar ngir mën a indi jàmm muy ci élection yi ñu dëgmal mais aussi eg topp waaye euh, globalement Sénégal nekk ci yi ñuy wax espace public sénégalais nekk espace public bu apaisé su ma mënee wax ci euh, kàllaama tubaab mooy taxawaay boo xamante ni way politique dinañ ko taxaw ci anam boo xamante ne nag ñoom ñoo koy proposé ndax ñun dañu ñëw rek ngir nemmeeku su leen donc consultation lañ def tey ngir ñoom ñu wax ñi ban anam la ñu war a mën a jaar ci seen wàll loo xamante ci ñoom lay jóge wala ci wàll nguur gi wala ci wàllu yeneeni pàcc yoo xamante ni euh, dañ ko woowee ay société civile fa lañ mën a jaar ngir mën a saxal jàmm ci réew mi loolu yëpp nag euh, ci euh, kaaraangewu kilifa diine yi ndax ñoom bu réew mi amee kaaraange am nañ ci seen responsabilité te dafa am lu sëriñ Mansour Daba waxoon ci événement yi la passé mu neen Sénégal na ngeen xam ni kilifa diine yi duñ leen war mu kon ci ñoom loolu loolu lañuy dox incha allah ba lii nga xamante ni ay jafe-jafe la ñu koy commencé di ko nemmeeku ci réew mi ah ñu yaakaar leen ci ñoom yaakaar ci boroom réew mi yaakaar ci justice bi yaakaar ci mbooleem institution yi nga xamante ni war nañoo mën a teg ay jéego ngir jàmm mën a dellu si ci réew mi su ma mënee résumé euh, yaakaar naa loolu moo doon waxtaan bi te liñ ñu tontu it dal na suñu xel incha allah dinañ ko dugg ci suñ dinañ ko dugal ci suñu gafaka continuer suñu doxantu wala boog tax continuer suñu euh, nemmeeku yeneen coalition yi ah bu ñu paree. ñii nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi nga xamante ni mën nañu wax ni ñooy ñoo yore ñoom lañu dénk suñuy suñuy ëmb dinañ ci waxtaan ak ñoom ba lépp loo xamante ni yaakaar na ni war naa mën a indiwaat jàmm ci réew mi ñu mën koo taxawee ngir njëriñu Air Sénégal ngir njëriñu réew mi ngir Sénégal démocratie bi ñu ko kañee ci àdduna bi yëpp ñu mën koo dellu ci anam ba mu gën a rafet